agréable surprise ñu ngi leen ciy gërëm leen sant ci sama tour mais ci turu conseil municipal Ziguinchor yëpp et turu ville de Ziguinchor parce que ci cër boobu laa ñëwee fii tey seet si euh, euh, la commune seur des Parcelles Assainies parcelle nag mun naa wax ni sama commune la sama commune la ndax dëkk naa fi ay at parcelle laa njëkk dëkk ci ndakaaru bi ma génnee enam en 2001 parcelle laa ñëw loué donc dëkk naa unité 25 24 wetu Kër Manga pendant un an quelque dëkk unité vingt doog a dem dëkki HLM Grand Grand Médine donc dëkk naa fi ay at. te damay wax ni fi ma mës dëkk Dakar yëpp parcelle moo ma a marqué moo ma gën a marqué ci fi ma mës dëkk Dakar yëpp parce que dëkk naa fi mu doon une prolongation pratiquement de li xamoon ci fi ma yaroo ci région esprit dafa xaw a niroo may dëkk parcelle dama daan génn dem football yi génn dem fekke waxtaanu diine yi génn dem seeti ay ay xarit y avait de la vie ba pare c'est très social par rapport ak beaucoup de quartiers de Dakar nga xam ne kenn ku ne da ngay tëju sa kër rek e sama ñaari doom sama taaw ki tegu ci moom fii lañ juddoo parcelle ba léegi mairie bi moo leen di délivré seen extrait de naissance kon mun naa ne suñ ma doon lan mooy sa mairie ci su ma doon désigner lii sama mairie Dakar defe naa parcelle lay doon ba pare ma fi ay goro fii unité 24 damay goro dëkk fii. Euh, def naa yéen ñëpp xam ngeen élage Hadj muy liggéey fii ci mairie bi sama gorol ndax moom ak sama soxna ñoo bokk benn baay kon li ma booleeg parcelle bëri na trop euh, muy commune boo xam ne commune bu centrale la ci Ndakaaru waaye commune bu centrale la ci Sénégal également c'est commune extrêmement importante les Parcelles Assainies moo tax su may ñëw fii je viens avec beaucoup de plaisir bëggoon nañ ko gën a teel a def madame Loum waaye nag euh, diggante élection locale gérer mairie engagé élection législative dugg ci yeneen temps bi xawoon na manqué lii lu ñuy door la tey bëri na mairie yu ñu war a dem ziare ji mais tey lañ ko démarré fii ci Parcelles Assainies euh, ñaareel bi ma bëgg a wax mooy encourager l'équipe municipale Euh, derrière votre maire Jamil Sané Jamil kenn du ko présenté defe naa maa ko présenté waa parcelle parce que koo xam ne bi ngeen di ànd gën saa ay dix douze ans ngeen amoon ba tey jii ñuy waaj matal cinquante ans defe naa ànd boobu yàgg na kon xam naa ko euh, xam naa dinaa ñëw wax sax waa parcelle <laughs> daa ñëw sax waa parcelle bi muy nekk latéral droit moom yaay romb bal bi des wala bal bi romb nga des te soo waxee mu song la kon yàgg nañ trop xamante nañu eh, waaye su ma doon tënk Jamil daal li li ma ci gën a génne ci màndarga moo tax keroog buñ koy présenté waa parcelle ak o soir de l'élection bi ñu ma ne parcelle fal na Jamil maire dama ne parcelle am na maire su ko xamee am na ko su ko amul xam na ko parce que li gën a central ci nit mooy njub te man mun naa teg sama loxo ci xal ni Jamil du mus a jël dërëmu parcelle te loolu mooy li ëpp solo yeneen ak yeneen day fekk si loolu waaye njub ci li ñëpp bokk li ñëpp bokk nga mën cee maandu. jub si ba doo ci laal loo coorul laal loolu denrée bu raal la ci suñuy dirigeant politique moo tax ngeen di dégg li ngeen di dégg ba ci jamono feebar ñëpp jaaxle màndu googu manqué ci réew mi ba ñuy jël alal réew mi di ko dugal ci leneen kon am ngeen maire li ci des mooy ñëpp jàppale ko parce que benn nit defarut dina métti trop mun nañu am ay coloration politique yu wute mais li may wax Ziguinchor rek te xam naa ni moom lay def fii nee naa leen man su ma xasee ba ñëw ci mairie bi aw ma parti politique aw ma coloration politique et je ne même pas d'audience politique à la mairie loolu dama ko bañ su ma xasee ba ne cëpp ci mairie bi je suis là pour tous les Ziguinchorois xaw ma ku far fan ku bokk fan c'est pas important noonu tam la quel que soit euh, les chapelles politiques kenn ku ne bokk nga ci mouvement wala bokk nga ci parti waaye bu leeree ni kii ñu jiital defar rek ko tax a jóg dañoo war a bàyyi toutes les autres contingences yeneen calcul yëpp ñëpp ànd jàpp parce que su baaxee ñëpp lay baaxal tey suñu ne woon defar nañ fi day poste de santé yu bees mais kenn mënul ne waa Pastef rek ka fay dugg wala waa PUR rek wala waa taxaw rek wala waa APR rek déedéet c'est un poste de santé pour tous les Parcellois bu mais est-ce que ku fay jaar dangay ngay génne sa carte parti politique ñu doog la ne jàll noonu non c'est fait pour tout le monde kon loolu ñun culture bu ñu war a andi ci politique la bu liggéey jotee nañu liggéey parce que ñi ñu wóolu loolu moo tax ñu wóoluñu te kóolute boobu dinañ ci rendre compte tôt ou tard fii wala fële moo tax buñ la ba fal fàtteel yooyu li ñu gën a sonal ci senegal mooy ku ñu fal balaa ngay toog sax yaa ngi xalaat deuxième mandat naan nag naka lay def ba am ko kan laay jënd kan laay dàq kan laay tëj kaso kan laay def nii nga topp ci loolu ba fàtte liggéey bi kon ñaan exhorter tout l'équipe municipale en tout cas à faire moom it mu gën a góorgóorlu ndax nit matul gën a góorlu am ouverture boobu liggéey ak ñëpp affine la vision waaye vis-à-vis de ñi nga xam ne ñoo ñu jiital parce que defar yombut de léeg pour tabax il faut nga toj léeg pour tabax foog nga toj lu màgget ba munatul dem nga ne il faut ma defaraat ko léeg li li gën a yomb mooy nga raser defaat fondation tabax boo ñëwee nag hérité d'une gestion di nga fekk ay pratiques yoo xam ne amoon na fi ay jikko yoo xam ne amoon na fi di fi fekk ay. comportement wala ay droits acquis loo xam ne du woon yoon sax waaye nit day dem ba jàpp ni lii yoon la parce que da na ko doon def ñu nangul ko ko wala sax dañ ko doon pouse pour mu def ko léegi boo ñëwee nag lii dama ko fii dindi façon résistance bu nekk di nga ci jot te dañoo nekk jamono communication nit dina ko leer ni nekkul dëgg daw nag woo presse bi woo ñëpp yooxu menacé foofu nag le leadership di feeñee parce que dafa bëri ci acteur politique yoo xam ne bu ñaar ñett yooxoo rek nga ne xaaral ma gaa daw ndax sinon ñii dootuñu ma jox carte mais ku bëgg a defar nanga ànd ak yërmande na nga naxante nanga waxtaan waaye li nga xam ne mooy njëriñu askan wi bu jotee na nga ko def loolu dafa am solo ndax ku tukki dem bitim réew li nga gis ne liñ ñu rawee loolu kese la li ñu ne lii mooy réglementation bi fii nit waru fee toog fii nit waru fee gaare fii nit waru fee dugg ku ci ku ko def yoon dal sa kaw loolu rek mooy différence bi il faut nag ñu boole ci yërmande xool nu ñuy accompagner nit ñi parce que moom wax na ko léegi dañoo am population boo xam ne majoritairement jeune lañu te lajj yi lajj li état yi lajj ba tax suñu réew téewuñu ko suñu koom-koom téewuñu ko suñu alal réew mi ngi dem bitim réew tax na ba ndaw ñooñu toll ci war a am tedd ak teral seeni waajur ñu ci bëri amuñu loolu ñooñu nag il faut ñu accompagner leen ànd ak ñoom yër ak yërmande donte commune ñëpp xam nañ ni dooleem bëriwut loolu moom léeg-léeg nit ñi dañ naan mairie bi na def lii mairie bi na def nii man damay toog yenn saa ñu ne ma waaw monsieur le maire yoon bi tali bi man leen est-ce que xam ngeen ni tali bii du sama compétence parce que nee nañu national la wala voirie classée la du sama compétence compétence su état la mais dooleel mairie moo bëriwut loolu il faut sénégalais yi xam ko commune bu toll ni parcelle Assainies ñu ne ma ñu ne ma budget matagul trois milliards tu vas diir dire lan la mën a def ak budget boobu ndax Parcelles Assainies quatre cent cinquante mille habitants lañ ma wax Ziguinchor trois cent mille habitants matagul te ñoo ngi projet projeté budget bëgg a egg cinq milliards ci kàttanu yàlla c'est vrai la ñu am ci enveloppe PACASEN moo gën a boosté ndax gëm naa ni defe naa ñoo ëppale parcelle ndax ñun amoon nañu globalement lu mat cinq milliards ci PACASEN parcelle gëmu ne am na lu toll noonu waaye même boo ci génne loolu am na loo xam ne war nañ ko mun waaye cinq milliards lan la ci ci lu toll ni une ville lan la cinq milliards ñaata route nga ci mun a goudronner ñaata lampadaire solaire nga ci mun a am ñaata espace vert nga ci mun a def bëriwut moo tax loolu tam il faut ñu ci waxtaan ak population yi te di leen soññ nag man Ziguinchor dama engagé un ambitieux projet de d'élargissement de l'assiette fiscale parce que il faut sénégalais yi xam ni la ngay laaj sa maire la ngay laaj sa président la république la ngay laaj kenn ak keneen lu ci bëri sa poche sa war a jóge mooy contribution bu kenn ku ne ci ñun di def dañ la laaj lu yemamaay nag lu tolloog li nga attan mais suñ la ko laajee fay ko parce que loolu mooy alimenter budget biy permettre ñu defar santé defar éducation defar éclairage public defar jardin public defar stade defar leneen mais mairie xaalis bi du jóge ci asamaan si daanu loolu loolu mooy li ñuy xaar ci population bi population bi li muy xaar ci ñun mooy benn na nga am vision bu leer ak programme bu leer ñaareel bi na sa loxo set wicc dërëm bu dugg na dellu si askan wi loolu moo na rek le contrat moral entre les populations et les dirigeants ba tax en tout cas gis nañu li ngeen démarré fii ci Parcelles Assainies du ma ko def à l'actif du maire dama koy def à l'actif du conseil municipal parce que maire su amul accompagnement conseil am du dox ça veut dire que li muy gis yéen a ngi ci ànd ak moom waaye li ngeen di gis yéen it ñëw diis ko ko la ca baax jël na ko boole kook li mu yoroon pour ngeen mën a avancer il faut continuer dans cet esprit là c'est extrêmement important euh, dama koy tooñ souvent keroog defe naa am na ñu ñëw sax ba siège di ma seet si mooy suñu mbokk yi ñu doon euh, yëkkati marchand ambulant yi suñuy frère lañu suñuy sœur lañu ñu am yërmande ci ñoom war leen continuer jàppale su maire di def loolu ak conseil municipal bi defuñu ko parce que dañoo soxor déedéet defuñu ko parce que dañoo bëgg a lor nit mais environnement public dafa war a am réglementation loolu dafa am solo dégg naa ne nañ nañ dem seeti magam sax dem nañ ba siège waaye mooma mag nag fuuf rakkam la <laughs> rakkam la buñ jàpp ni <laughs> maay magam waaye buñ ñëwoon it li may waxtaan ak ñoom mooy li maire wax ak ñoom rek parce que dama koy dund man ci mairie bi may gérer euh, euh, léeg nga bëgg a def dara lu tegu ci yoon ay nit opposé wu te leer na ni teguwuñu ci yoon na nit ñi di waxtaan di diisoo di xool du ñuy defaree waaye nañuy kenn ku nekk léeg na fàtte boppam xalaat li ñëpp bokk loolu dafa am solo ñetteel bi nga xam ne nag bëgg naa ko aborder mooy bokk na ci li gën a tax ma ñëw mooy naka la ñuy def ba commune des Parcelles Assainies ak commune de Ziguinchor mën a bokk liggéey ñu bëri ñu wax doyen Diouara moom yàgg na fa xam na expérience keroog bi ñooy Ziguinchor wax na ma ci euh, il faut ñu am lu ñuy lu ñuy teg lu am solo parce que wax na ko Ziguinchor Casamance de manière générale potentiel bi fa ne kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu toll lu bari di yàqu ci àll bi màngo yi sal darkase yi euh, euh, nu mu tudd les autres productions forestières kenn xamul nu mu toll liy yàqu foofu mu am nag ñu jàmbaar rawatina jigéen ñi rawatina jigéen ñi parce que ñoom ngay fekk ci transformation bi ñoom ngay fekk ci activité yu bëree bëri bëri ñuy def liggéey bu am solo am na fay GIE yu am doole mel ni GIE sant yàlla GIE Sofora ñenn nag ñeneen ñi ngi def liggéey bu am solo ba léegi sax di implanter seeni unité industrielle di transformer mais léeg-léeg problème écoulement dina am man jàpp naa ni suñu communes yi bu ñu réfléchir bu ñu de mun nañ sax créer beaucoup d'emplois beaucoup d'emplois entre emploi production à la base emploi distribution commercialisation issi au niveau de Dakar te des zones comme Parcelles Assainies am na potentiel démographique am na pouvoir d'achat aussi ba tax man pour man li may suggérer monsieur le maire mooy dans tous les pro dans les tout prochains jours ñu mettre en place un comité mixte entre Ziguinchor et les Parcelles Assainies en collaboration avec la ville de Dakar parce que le maire Barthélémy Dias dañuy waxtaan lu bëri am na lu ñu bëgg a def dans le cadre de l'économie sociale et solidaire xam nga ni ren Dakar sax mooy accueillir euh, mois de juin suma juumul le 23 juin le forum mondial de l'économie sociale et solidaire man Ziguinchor lancé naa fa un programme pour l'économie sociale et solidaire maa ngi ci phase collecte de fonds pour am suffisamment de moyens et budget ren bi sax am na des crédits qu'on a inscrits pour financer l'économie sociale et solidaire mais lancé woon nañu appel à contribution bëri na ay yoo xam duñu sax waa Ziguinchor mais yëkkati nañ seen cinquante mille joxe ba ñuy commencé am quand benn montant boo xam dinañu permettre ñu mun a allier ñaar benn bi mooy la formation à travers la couveuse d'entreprise parce que nit balaa nga koy jox xaalis pour mu liggéey il faut lui apprendre à entreprendre parce que nous ne pas nés entrepreneurs Eh, yàgg nañu jox nit xaalis du xam sax fu xaalis bi jaar parce que xamul nu ñuy entreprendre jox ko des notions élémentaires ci tenue d'une comptabilité ci relation avec les banques ci gestion des stocks ak yeneen ak yeneen ñaareel bi mooy boo former nit ñi ba pare nga jox leen financement ñu mun a commencer de l'économie sociale et solidaire soo euh, sa cible dëgg dëgg dëgg mooy sortir les gens de l'extrême pauvreté et de la pauvreté moo tax jaaykat bu ndaw bi nekk fii maire bi jaay caaf ñiy def seen benn jeu di def di araw des trucs comme ça ñooñu lañu ñu gën a ciblé parce que ñooñu seen revenu bu amélioré rek ci lay am impact sur la pauvreté mais c'est pas le gros capital la ñuy viser et donc am na loo xam ne ville Dakar ville de Dakar war na ko organiser am na des capitaux et des fonds dans le monde lu bëree bëri loo xam ñi ngi wër di xool nu ñuy financer ay activités une bonne coordination entre nous war nañu permettre ñu capter une partie de ces fonds mais <coughs> li doyen wax laa gëm man dama mës gëm jëriñ sa bopp mënal sa bopp d'abord muy effort personnel yi nga xam ne war nañ koo def ñun pour lancer dara ba nga xam ni kiy ñëw sax pour jàpp si dina fekk dara ba pare ndimbal da ciy fekk loxol boroom lañu wax et je pense que les Parcelles Assainies ak la commune de Ziguinchor war nañu mun a lënkaloo et ce sera pas seulement la commune des Parcelles parce que man gëm naa ni potentiel bi am foofu mënul yem ci benn commune war nañu mun lënkaloo xool saa va permettre peut-être ici ñu cibler des gens soit individuellement soit de petits regroupements de jeunes de femmes yoo xam ne dinañu recevoir une partie de la production ñoom écoulé génne seen marche ñi ñi koy produire fëre am liñ ci am ñoom aussi à la base dina doon circuit bu fluide kenn ku ne am ci sa wërsëg te dina créer des emplois également mais c'est un aspect boo xam ne je pense que war nañ cee mën a liggéey euh, si on met en place euh, un boo xam da ciy liggéey am nañu ci am expérience proposer ñu des schémas kenn ku ne li mu commencé déjà di ko def mu pré mu teg ko sur la table sur le plan culturel aussi crois que war nañu mën def lu bëri monsieur le maire m'avait annoncé votre euh, le festival bi ñu organisé fii ku wax culture tudd Casamance naturellement euh, avec une mosaïque culturelle extrêmement riche et variée et jàpp naa ni sur ce plan là également am na loo xam ne war nañu ko mun a liggéey ensemble et sur tous les autres domaines de la de la gestion commune partager des expériences par exemple mois euh, moi Ziguinchor problème yi ngeen am fii moom la ñu am foofu le plus grand marché de Ziguinchor moom xam na ko tey ñaanuñu ko yàlla waaye su fa dara amoon mar day parce que dafa fees a fees a fees ba bouche d'incendie euh, parking bi lépp nit ñi dañ ko occupé léegi moom biñ ci waxtaanee dama ko ne peut-être ñoo leen ëpp chance tuuti damay dama jël une partie de des fonds qui étaient destinés au PACASEN nit ñi bëggoon ci def ay immeuble ak yooyu ma ne dama ciy def ñaari marché un marché au poisson et marché aux produits agricoles bu soobee yàlla bu yooyu paree plus un programme pour réfectionner trois autres marchés bu loolu amee nag dootuma nangu ku lal ci mbedd dootuma nangu mu am benn débordement par rapport aux cantines faut des mesures d'accompagnement donc def des échanges d'expérience également sur des problématiques de ce genre c'est vrai que c'est plus compliqué à Dakar parce que espace amul euh, tey soo bëggoon tabax un nouveau marché au Parcelles Assainies ci vas te dire fan laa koy def en tout cas parcelle bi ma xam man le premier problème c'est fan def marché bi parce que gaw ma ni génne fii 5000 mètres carrés sax dina dina yomb waxuma laa génne un hectare euh, ou plus mais je pense que daal on peut examiner beaucoup d'axes de coopération looloo taxoon je tenais à venir euh, partager ces moments avec la commune de Parcelles Assainies euh, ne leen nag très prochainement euh, déjà dès demain en tout cas d'ici la semaine prochaine les deux parties vont donner le nom de leur de leur euh, plénipotentiaire pour liggéey bi ñu war a def mais dans les prochains jours on invitera également la commune de Parcelles Assainies à Ziguinchor ngeen ñëw ak seen délégation ñu am des séances de travail jël peut-être deux trois jours et euh, en alliant l'utile à l'agréable peut-être des visites des des activités euh, culturelles et pourquoi pas sanctionner ko par la signature euh, d'une convention d'un protocole de jumelage et de partenariat entre les communes de Ziguinchor et de Parcelles Assainies. Quand on est très content de votre accueil ñu ngi leen di gërëm bu baax merci beaucoup. thank you